jërë ngeen jëf Alioune Ndao ma réeroon feeñ na moom mi ne woon bu cour répression enrichissement illicite di këré daanaka moo nekk ci mboolem yéen kay ñu xëyandool l'observateur nañu cim ndajem waa union des woon démb doon ca waxtaane ak a si si réew mi Rambo fa ñu ko seen moom Alioune Ndao bi mu jëlee kàddu gi di wax wax na ne waxi troisième mandat bu président Macky Sall bi ñuy jaaba jonge ak di ko ŋawta ŋawtee ci réew mi boobee ba léegi daanaka ñi ci nekki wax dañoo sawar a wax rek waaye ñëpp xam nañu ne Macky Sall waruta am am troisième mandat ci bopp réewum Sénégal moom Macky Sall ci jëmi boppam sax xam na ko ne li ci constitution bi wax dafa leer mu di kenn mënut a jiite réewum Sénégal lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Aliou Ndao noppi ci loolee dali ci ministre intérieur di Antoine Félix Diome nee na xam na Antoine Diome bu baax a baax liggéey naa ak moom newoon naa it njaatigeem heure bu ma saana am ay problème man lay seet si ñu waxtaan ci magam la ma jàppe woon daan na wax yoo xam ne sax daawu ko wax magam ju mu bokkal dama koy ñaanal ndam ci li mu nekk waaye nag di ko xelal mu defaraat ni muy communiquer baaxul te def tere attention pression ci ndax bu leen toppee ci seen bëgg-bëgg ci guuta la koy tàbbal te bu mu fàtte mukk moom Antoine Félix Diome ne am na carrière bu mu war a sàmm la Sénégal nañu moom procureur spécial bu cour répression enrichissement illicite ba woon di Aliou Ndao wax na ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr yi fii lëmbe woon réew mi fan yi la weesu nee bu dee li ñu koy waxal moom Ousmane Sonko ak di ko ko toppee ak di ko ko tuumaal bu dee lu wér la nañu ko yóbbu ci yoon indépendant ndax du leen arrangé mu ne dañu gis ci réew mi ay ministre yuy sant ay procureur ngir ñu bañ a topp ma sàmba baa di topp ma demba te loolee ñu bëgg ba sant koy procureur ni ñu ko bëggee na la leen ko procureur yi di defalee nee na tii di Antoine Félix Diome ministre intérieur sama rakk la li ma koy digal moo di na def attention ndax Macky Sall ñetti at a ko fi dese te aw mar mu tax dëtamu am póotit bu ndox amee gàcce ray la lii quotidien nañu na ci na ci mbiri Ousmane Sall bi wax na it ba wax ak kii di Antoine Félix Diome bay sàkku ci moom mu jàngiwaat communication ndax nee Antoine Félix Diome bi mu doonee ministre intérieur ak léegi ay tooxi duuna ak i raaji génn rek la fi dëkk ko neex lay waxe ak sénégalais yi te ab ministre de l'intérieur ci am réew loolee waru ko nee na lu soxal mbirum Ousmane Sonko ak Adji ak ni mbir yi demee c'est normal ñu wax ci waxi kompolo Sud Quotidien xëy di ñu wax ndaje mi waa Union des démanteli ko président union des magistrats du Sénégal Moustapha Fall di magistrat Alioune njiital Africa Jom Center ba ci professeur Ngouda bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ku ci nekk ci ñoom ay kàddoom mi ci xët mu njëkk Sud Quotidien ci xët mu njëkk Les Échos wax joojee moo fa nekk ak it kàddu yi Souleymane mu fay wax ne justice cim réew bu amul indépendance am moo di ñàkk na dayoom ak wegeelam Alioune Ndaw ñu fa moom ci lu mu xam musula fàttalikoo fu xët mu njëkk journal la mandat yéenekaay bi dañoo ginnaaw bi mu génnee ci kaso bi keroog àllarba ak liberté provisoire moom jiital FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna nee na la mu ne woon du ca jóg tey jii ci la gën a dogu ci xeex li mu tuddee banditisme d'État mu di jëfi yuqu njuur yi am ci réew mi réewum Sénégal ak réewum Congo Brazzaville tey jii ci tàkkusaan ji ca la ñuy football record yéenekaay nañu ci ngoon ca la max bi war a am ma ngay fa ñu teg seen tànk ñoom équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football moo di yoonu ndam wi ñu tegu ñu bañ ko wàcc ngir loolee mën a am nag yéenekaay bi ne nañu il faut que dañuy gagner seen max tay bi